Mm, bu ma juumul en tout cas euh, xam naa ni lu mu néew néew kenn ku ne war ngaa mën a laal deux cent deux cent dollars la xama qu'est-ce qui se passe pour ñëw soutenir euh, accueillir ki nga xam ne mooy président Macky Sall foofu la ca New York te mu rafetoon rek yow ngay dem sa doomu réew ñëw gàttandu la boo leen jiwoon lu baax nga teg ne duñ la ñëw du ñu jël seen temps bi ñuy jëw di la yuuxu est-ce que mënuñu woon jël temps boobu apprécier la remercier la sargal la léegi yéen ñooy dem di fay ji ay ñeneen doomu yeneen dëkk pour ñëw ñu taxaw leen di leen fay cent dollars même bu doon dix dollars sax wala cinq dollars sax jaru ko parce que xam nga lu tax dañoo mat dañoo minoritaire ñooñu lañ mën a fay parce que bu dee sénégalais na ñoom xam na li nit ñi di dund ñu nekk foofu xam nañ li seen réew mi di dund parce que ñoom ñoo yor réew yi ñoo yor réew mi fii bëri na kër yoo xam ne ne waa diaspora bu dul ñoom kër yi naa ni ñeex parce que ñoom ñoo leen di dimbale. Mhm. parce que li ñuy dugal ci diaspora li muy dugal ci réew mi. ak famille yi nga xam ne tey bu ñu mënee am sutura tuuti waa diaspora tax. kon ñooñu li ñuy dund ñoom xam nañ ko. Mhm. kon ñooñu kenn du leen ñëwaat di leen fay pour ñu dem teertu la wala defal la dara peut-être ay Mauritanie yi ngay jël ñeneen yeneen nationalité te lii rek gàcce la sax yow ñëw ci réew di jël yeneen doomu réew pour financer leen financement boobu doo ko def ci réew nit gis ci seen bopp buñ ci gisoon seen bopp duñ la tàccu accolade la. nga ñëw ak fierté mais nga ñëw xam naa ne fu mu dem moom gàcce lay wëyee man dama dem ma yàgg dama ne est-ce que ñii ngor nekk na ci ñoom am na yenn gàcce yoo xam ne dara jaru ko billaahi rek dara jaru ko ci nguur rek dara jaru ko dafa rafet sax ngay dem fenn say doom ñëw sagoo la safoo la faale la mais ngay dem yow ci sa bopp sax foo génn yuuxoo yi ñu gis yenn video yi di def li fi xew yépp ci lu ñaaw ñu leen koy won loolu nag boo ñëwee war nga mu a leen déglu may leen nopp xool lan moo leen métti boo ñëwee Sénégal seet lan nga ni day jooyanti àdduna dara moto fi mais ñii du ñu jooyante parce que dafa mel ni comme li may wax rek ñàkk yërmande gi ba indi tey li ma leen mouvement yërmande parce que dama gis ne réew mi dañoo ñàkk yërmande yërmande gi léegi dafa mel ni nit ñi kenn amatul yërmande keroog ba Ousmane Sonko tëddee fële ci hôpital bi. Mhm. ñu ne grève de la grève de la grève de faim. lan nga gis ci waa APR ak waa ci télé yeeg ci rajo yi. di jubilé di jubilé naa daan ci ñëw sax daan ci ñëw kon jeex daan ci ñëw après mais mais mais euh, foofu la ca New York après euh, foofu la ca New York ca ca Amérique mm-hmm. gis nañu euh, en tout cas ñenn ci ay sénégalais yu takkoo takku génn nañu mais sa jigéen kuramag yi nañu mukk ci àdduna laa xawla wala xawat illa billahi mukk ci àdduna sama jigéen kooku kañ liñ ko def musiba naaru laay la kooku ma gis ko muy génn bay dóori ay saak mel ni mu mel ne comme te jaañ si si waaye buñ ne sama jigéen kat asbunallah wa ni'mal wakil asbunallah asbunallah mag ku ramakeeg sama jigéen man jigéen ñu ma am du ñu saaga jigéen ñu ma am du ñu wax lu ñaaw jigéen ñu mu am du ñu wax lu lu rafetul lu sell lu dëggu xool leen ko rek xoolal yii nii rek yii dafa ñaaw sax ba pare ñu ne kii député la de waaw waaw honorable kii mooy député honorable honorable lii mooy honorable <laughs> mais kii mel ni ko ay nagam ñëw ci naan si wu ni ñu ko xëppee ndox nii tamit. waaye lépp a ñaaw moo tax loolu moo tax ma ne la nit lu mu leble rek lan lañ lay fay li ñu leble moo rafetul xam nga déggoo ma ne rafet rafetlu wu ma ko. mais peut-être dañ leen ko fay. loolu mooy tax kuy leble leble lu baax boo leble woon lu baax lii moom ñëkk na ko def dem nekkul assemblée di saaga. avant ñu koy def député nekkul bitim réew di saaga. yéen ñëpp dégg ngeen ko bari na fi vidéo de. waaye merci beaucoup loolu mun ngeen ko vérifier. am na boo xam ne fa la ah, yow fa la la fekk. kon lu ñu leble li mu leble nañ ko fay nañ ma xam ne dëgg fii lu fi waay leble yàlla ñu fay loo parce que bor la rek danga koy teg. ñu dellowaat la ko kon nag instant bi moom mais waaye mukk ci àdduna waaye waaye macha xaw ma subhanallah subhanallah subhanallah ku a makki kañ na dem ma dem bu ñu bokk sama yoon <laughs> voilà bokk bu mu bëggee sax moom ma changé nationalité <laughs> mais mais ku lu la def <laughs> waaye kii kañ maanaam bu may bëgg jigéen bëgg naa jigéen boo xam ne ne dafa gëm réewam gëm boppam gëm askanam Ah, parce que loolu moom non non xeexalu réew kii Macky Sall lay xeexal xeexalu réew mi xeexal réew mi mooy xeexal coonoy réew mi coonoy réew mi loolu mooy xeex mais xeexal nit man xeexalu ma Ousmane Sonko ne man réew mi lay xeexal jafe-jafe yu nekk ñu génn ci ba kenn ku nekk mën a gis ci boppam looloo tax mu topp soon Sonko bu ma ko gisutoon loolu man weddi naa ko wala def naa leneen te yéen gis ngeen ko man lu ma war a wax ci Ousmane Sonko loolu lu ma gis ne ne d' accord ma sax damay wax publiquement d' accord ma. Mhm. loolu sama que loolu laa mais kuur a kañ kii kañ bu ma sax tuddati kii bu ma waxati sax. <laughs> d' accord kara kara kii kañ kara sax. mais mais Diagne sànq tudd nga Ousmane Sonko mu nekk en tout cas seen seen leader seen candidat mais. ay fan a ngi nii yoo xamante ne si nii parce que li ñuy am ci ay nouvelle am bariwul. Mhm. ay avocat am ñi ngi xeex ñi ngi continuer mais naka nga jàngate situation jamono ji nii est-ce que euh, jàpp nga ni Ousmane Sonko euh, ba nga xamoon ak ba ngeen amoon moom ngeen continuer di ko am ba léegi nii. waaw bi ñu amoon nag ak bi ñu am léegi tamit c'est toujours pareil au même man jàpp naa ne Ousmane Sonko daal lenn rek laa xam ne ni man dama ci waxoon artu ci. Mhm. muy dama gisoon lii te nag mu métti ma. parce que dama ko gisoon wax ko wone ko mais peut-être gëmuñ ma woon wala xalaatuñu ma woon buñ ko fàttaliku ci 10 février 2023. waxoon naa ko ci euh, mbitingu Mbàkke bi. Mhm. ma ne ko yow président Ousmane Sonko bu doon sama sago. Mhm. mën nga dem Touba julli fa jumaa dem seeti suñu mbokk Baay Faal mais bul dem Mbàkke. parce que ñu ngi lay defal ay ndëgg sërëx yoo xam ne ne kuy teg kuy teggee ko gën te am na moment boo xam ne jiital sa xel mi li ñu ne mag nee na ma. xel moo ay ci doole dafa am moment boo xam ne sa xel ngay utiliser mais du doole parce que ñii am nañ doole te amuñ yërmande te soxor nañ am na foo xam ne ne foofu da ngay ànd ak sa xel ànd ak gis-gis parce que boo ko deful dinañ la dugal ci ndëgg sarax yoo xam ne ne doo xam foo koy waxee te loolu dama ko gisoon te waxoon naa ko kenn du ma weddi ku ko bëgg mën nga ko euh, boo ko ki cliquer ci àdduna yëpp di ko gis mhm. ci même jour bi defe naa ne am ngeen ko keneen ak keneen am na ko ci même jour le 12 10 euh, février ci meetingu Mbàkke bi parce que dama ko gisoon xamoon naa ne ñu ngi ñuy bëgg a duggal ndëgg sarax ba pare li ñu doon incriminé mooy lii mooy yii set wala huit inculpation yi ñu teg trouble à l'ordre public terroriste nangam nangam lu nekk ñu teg ma ko loolu yëpp dama ko gisoon parce que lu tax ma gisoon ko dama xam ne ne ñii ñëpp seet nañ bépp point bu ñu mun a faagagal Ousmane Sonko ci politique munuñ ko ci jub ga ci dëggu ga ci lépp munuñ ci dara kon nag leneen luñ la mën a incriminer dinañ ko def muy comme genre yi nii appel à l'insurrection appel nangam nangam nangam loolu yëpp dama ko gisoon te loolu tax ma doon alerté alerte boobu nag peut-être dugg nañ ci te loolu laa doon bañ parce que nii ñuy wax nii yëpp bu doon sama sago mu bañ ñu bañ ko jàpp. d'accord te loolu dama ko waxoon parce que dama ne woon man laa wax. Mhm. fi may wax ragalu ma ko tiituma ma ko te fii waxee woon naa ko fa ne woon naa bu doon sama sago. Mhm. ma jege woon Ousmane Sonko parce que jege wu ma Ousmane Sonko. bu ma ko jege woon barke sëñ Babacar si mi ma yaakaar muy sëñ sama sëriñ sama wasila. Mhm. billahi ba mu desee un mois un an ci élection yooyu Ousmane Sonko dootul wax dootul tourner dootul def dara parce que la mu waroon def def na ko sénégalais yi adopté nañ ko bëgg nañ ko na dem toog jàpp ñàmburam na toog sa biir këram bu mu génnati moom defati dara na dem mairie toog liggéey jàpp seetaan leen parce que boobu réew mi téye na ko en te fii laa waxee woon naa ko bu ngeen ko fàttale ko mais booba coalition bi mbokk est-ce que mën a téye boppam aussi. waaw non téye sa bopp leen loo xam ne ne bu dee conférence de presse nit ñi wax loolu c'est normal mais téye sa bopp ci yeneen manifestation yoo xam ne parce que xam nga dafa boo ànd ak ñoo xam ne ne lépp luñ mën a def pour incriminer la da nga koy daw du moytu du ragal Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne du ragal ku waxal yàlla rek xam nga ne ragalul mais dafa am loo xam ne dañ ne teg kuy teggee ko gën te moytu dafa baax ci nit parce que ñoo xam ne ne am nañ doole wala am nañ pexe da ngay seet nan ngay teggee du ragal de dafa am moment boo xam ne ne dootul ragal mais moytu la parce que léegi fi mu nekk nii lu ci nit man ñëpp a ngi manifesté ñii ñi ngi wax état yi li gën a métti mooy na mu nekkee na ñun ñëpp xam nañ ko. ñan la nekkal ñun ñoo ko téye. nañ waxante dëgg est-ce que bañuñ ko téye ëpp doon jàmm te loolu laa doon daw te loolu laa xamoon parce que moment la woon boo xam ne ne lii bañoon am moom la man moom ma gën a rassuré damay wax rek te yàlla tas parce nag li may wax sama akulaay taala laay wax li may ne Ousmane ko dara gëm-gëm. ak idéologie ak dëggu ak ragal yàlla ak jub bi nekk ci moom loolu laa ko gëm te loolu laa ko jàppee mais dafa tegoon na moment boo xam ne ne dal daf ci baaxoon moytu daf ci baaxoon parce que ñu ñu jàkkaarloo xamoon naa ne bu li ma bëggoon bu ko defoon billaahi wallaahi mu ma ko doon conseillé duñ ko jàpp wala problème yu nekk du ci dugg parce que li mu nar woon moo ëpp li mu nar a wóotu ji parce que incertitude lañ incertain euh, incertain euh, la ñu am instant bi kenn mënu la ci wax dara réew mi fi ñu jëm nii nit mënu la ci wax dara élection sax dina am ak yooyu kenn xamu ci dara yaakaar rek la ñu am de mais amul kenn ko am certitude benn candidat nga mës a xalaat ne ne fii dina fi dina falu wax ma benn candidat ku dul Amadou Ba nga xam ne ñoom moom ñoo yor réew mi lu leen neex lañ ci def bu dul loolu wax ma keneen ku am cert ko am certitude ne dina doon candidat wax ma ko te yow journaliste nga te yeneen élection yi fi mos a jàpp balaay muy def 6 mois xam ne ñan ñooy doon candidat wala boog euh, di nga xam minimum ñii nga xam ne war nañ doon kànde mais léegi wax ma tey jii nii à part Amadou Ba nga xam ne ne waa APR ñoo ko ngemb ñoo koy kii moom mun nañ ne far force dina doon kànde mais ba à part moom wax ma keneen kuy doon a lañ bëgg te loolu la ñuy jàppale mais lu tax ma ne ne amuñu incertitude quand même nañ waxante dëgg aussi tamit nit buy waxee nay wax lu li mu mun a ne maanaam munuñ waat ci kaamil loolu lañ bëgg te loolu lañ jàpp mais est ce que mun nga waat ci kaamil ne daf koy nekk ku ko wax daanu dëgg peut-être nag man loolu ma doon xalaat wala loolu ma waxoon bu amoon da nga am certitude na duñ ko mën a def parce que duñ la fekk si sa biir néeg wala mën a takk yóbbu buñ la takkee ñëpp àdduna yëpp gis ko ci la doon gën a neexee. loolu laa gëmoon. yërmande waaw. muy mouvement bi nga taxawal. jamono waaw lan moo la inspiré ba nga taxawal. mooy lii ma gis. li nga gis ni ci président Ousmane Sonko bi ñu ko tëjee ci kaso bi ay nit di yuuxu di kontaan di jubilé sa mbokku jullit bëgg réew mi comme yow. am yéene réew mi comme yow mm-hmm. ne ni ngeen koy doxalee d'accord ma ci ngeen war a ñëw sur des idées si ay projet loolu yëpp yéen ngeen teggi ko fa te moom loolu la fi njëkk indi Ousmane Sonko ci la mu leen doon woo bi mu njëkkee ñëw ci bi muy def livre bi du idée la ñëwee woon nañ taxaw ci idée xeex ci idée ku leen mën a gëm gëm leen ku nekk am sa projet ñu xool projet bu gën ñu choisir ko loolu la indi ma gis na ne nag loolu mu indi woon ñu dem ba jëmmi jamono leneen dox ci ma gis na la léegi sénégalais yow benn ci man bu may kuy wax ak yow sax sa xam naa ne sa journaliste sa <laughs> sa technicien bi dina leen ah seex mbaa kii wóor na <laughs> ah mbaa kii nàngam cest di réew mi nga xam ne koo defal sax pour nit wóolu la ci sax dootul am kii lu ko indi ba pare seetlu rek Sénégal léegi lu nit ñuy soxore Sénégal nit ñi dañoo soxor léegi dañoo aigri nit day nekk ci jafe-jafe nga war ko ñaanal yàlla mu jóg ci nga koy ñaanal mu dee te loolu dégg nañ ko ay Moustapha Diakhaté taxaw publiquement ne Ousmane Sonko dafa war a dee dafa war a dee xoolal lu toll ni kilifa nga yéene sa mbokku jullit wala sa mbokku euh, euh, euh, humain nga ko yéene mu dee ñaanal ko yàlla mu jóg ci jafe-jafe yi mu génn ci du terrain nag politique bi politique la bu ñu nekkee sur le terrain politique d'accord nañ amuñ problème mais nag am na loo xam ne nit waru ko yéene nit ak ñi dee ñëpp loolu yëpp mu war la métti te jullit li ci gën sax mooy ku nekk ci ay xat-xat dañ ko ci war a génne. mais nga gis ne ni ñii di gën a bëgg pour nga jóge fi mais gis nga yàlla nag moo ay ci potum bóor d'accord Ousmane Sonko bu dul woon ndimbalu yàlla ak li mu euh, taxawu ci sunu borom muy sell gi nga xam ne ne moom la sunu borom bëgg ci alxuraan ci diine ci euh, yonent bi nga xam ne mooy sunu euh, roywaay loolu la ko yàlla dimbalee ba ma xam ne ne 34 jour wax ma benn sénégalais wala benn nit ci àdduna commencé toog 4 34 jours lekkoo naanoo yàlla di la may ngay dund man de bu doon man moom ñaari fan xam naa ne maa ngi ca morgu ba <laughs> barke yàlla mais ndimbalu <laughs> yàlla ak jub bu nekk ci moom moom la ko yàlla parce que yàlla daf ko soxla daf ko soxlaal pour réew mi te bu ñuy dof dofloo ba ya li ñuy caaxaane nii ba yàlla jëlal ñu ko boppam maanaam téyal ñu ko en main liñ ci bëgg baax d' accord d' accord ci loolu ñi nga xam ne ay avocat am ñu ngi def euh, benn bataille juridique en tout cas jot nañu déposé. ñaari mhm. requête ci auprès la CEDEAO CEDEAO est ce que tey euh, combat boobu noonu euh, en tout cas yaa ngi ciy espérer benn suite. non man moom wax dëgg yàlla CEDEAO moom du CEDEAO CEDEAO des présidents la mais CEDEAO pour peuple seen peuple africain ñooñu moom du pour peuple bi moom. ñooñu moom seen intérêt rek ngay dégg foo déggee ñu laal kenn wala ñu taxawu ko xamal ne seen intérêt. guerre yi fi am ak nangam nangam boo déggee ñu wax rek mhm. ñu peut-être dafa nekkul à leur faveur seen président yi moo tax man CEDEAO moom lu ñoom de euh, magi euh, kii nu mu tuddati avocat yi seen devoir la ñuy def ñu remplir seen devoir ndax dinañ leen ko nangul mais man laa wax. Mhm. gaw ma ne luy jógee CEDEAO ñu jox CEDEAO joxatoon euh, kii nu mu tuddati ci mbiru Karim Wade wala mbiru xalifa sàll pour ñu nangul leen ko lan la ci CEDEAO def lañ ca waxoon lan lañ ca appliqué. lu ñu appliqué ci CEDEAO nen waruñ ko àttee nii ñoom Karim Wade ñoom kii lu ñu ci teg dañ ko fëlëx kon ay mbiru CEDEAO bi moom rafet na ñoom ñu def seen devoir mais gëwuma ko pour ñu jox soon ko doole dëgg googu parce que ak waa jii nii nga xam ne seen kii la nu mu tëddati ñoo bokk même ngëm-ngëm ñoo bokk même gis-gis ñu ko koy nangul loolu gëwuma ko. man de gëwuma lu CEDEAO war a def pour réew mi pour kii Sénégal nangul ko Ousmane Sonko loolu danaa bëgg te loolu laay ñaan yàlla mais wax dëgg yàlla CEDEAO moom gisuma njëriñ gu fa war a mën a jóge ba jox ñu faveur gëwuma ko parce que ñoom ña nekk seen njëriñu bopp rek a leen fa teg mais du njëriñu réew mi d'accord loolu moom ah mais xanaa euh, am nga am nga yaakaar ci ni Ousmane Sonko en tout cas euh, fi mu nekk nii ak yi ñuy teg ci kawam nii yëpp man na nekk candidat maanaam il toujours éligible effectivement ci ci ci ci kaw loolu noonu tey jii euh, bu fekkente ni ñi nga xam ñooy ses avocats fi ñu yaakaar ni fi la ñu war a dem parce que dañu confisquer ay